jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb ak seen lamb TV ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew gis ngeen bërki démb li xew diggante aada Fass ak kolifay Faye numéro 2. mu nekkoon bis boo xamante ni événement la ci wàllu làmb ay xale ñu tëgg leen yaakaar naa ne bokkuñu ci xale yi nga xamante ni ñu ngi encaissé lu mat vingt million jëm kaw waaye keroog bi ñu ñëwee arène nationale ñëpp respecté nañ leen ci mbooloo mi ñu indi. ci bis bi ni ñu ko jaayee vraiment bi ñu ñëwee ambiance bi ñu ci gis waaye kii di Coly Faye numéro daa bëre ak Ada Fass Ada Fass ko jël bu amul benn werante ñu nuyu ko bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñëweel waxtaan bi mbër maa ngi lay nuyu baax di la siyaar. waaw bisimilah alhamdulilah na wala yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaramoon Cheikh Rafa ginnaaw ma sant yàlla julli suñu tur maa ngi nuyu caare yëpp ndax dalee usine ba Kafer maa ngi lay nuyu ñoom ñëpp jeunesse caare yëpp di leen sant di leen gërëm muy xale mag ndaw ñëpp ma kenn paay ak maire ñëpp maa ngi sant di leen gërëm waaw di nuyu waa Lamsaar Jàmbagan Sikaab Fass Mbaaw Petit Mbaaw Kër Masaar Grand Mbaaw Zac Mbaaw gi ma dëkk may nuyu ñëpp di la sant di leen gërëm nuyu waa Tëngéej di nuyu waa Pikine yëmbal ñëpp daal banlieue bi may nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm képp koo xam ne yaa ngi sonn si ma rek maa lay sant di la gërëm. Hmm. sa diggante Ada nekkoon sa ñaata combat. ñaata victoire. seize victoire cinq défaites. sa palmarès ñan ak ñan ak ñan nga bëreel daan la. non non tey ñi nga xamante ni ci làmb am nañ ci position bu baax. tey ñi nga xam ci làmb am bu baax. ah daan naa Général Fass. Mm-hmm. daan Youssou Ndour. ñoo mm-hmm. daan mm-hmm. daal bari na mënuma lim ñëpp. Maguette Seck booy ñaar deux. waaw. Nandi Fall. Youssou kan. dem si yàlla si si bala si ñaar ko ñaanal fu mu jëm gënal ko fi mu jógee. Ah. waaw ñi ma daan daal mënuma lim ñëpp. Hmm. lu passé passé mais échange man laa xool xooluma ñu ma daan de. Hmm. ku ma daanante échange nii nii laa xool. dañuy ñëw ci bis bi parce que gis nañ open press yi première signature contrat bi dafa am noo ñëwee mooy da ngaa ñëw ñu gis Coly bu concentré wu takk maskam nangul wax ak kenn deuxième bi noonu troisième bi ñu jékki-jékki rek gis benn Coly bu tàkk lan moo la tàkkaloo bëgg a jékki-jékki ñaari signature yi. nga ne pat troisième bi nga tàkk. non tàkkul sax musul tàkk dama doon jaay bés yi rek. Hmm. bés bi laa rek promoteur laa bëggoon journée am jar rek. Hmm. ah noonu jaay suñu bopp. mais fekk dañ fi wax lépp loo xam leen loo xam ne njuumte la. Hmm. ñuy jégalu. noonu la ñu pour jaay bés noonu rek. loolu dinañ ci ñëw jégalu bi moom xam naa ci fa fu mujj fi la. Ah. mais moment bi nga koy wax. bi nga déparé fii fanaan xëy suba war a dem arène nationale war a bëreeg Ada ma moment boobu gëmoon nga ni boo demee làmb ja da ngay am ndam. ba tey gëm naa ne woon bëri waa dee ma daan ko ba tey damaa gën a bu ma ma daan yàlla suñu borom moo ñëw ndogalam rek. mais dama sama victoire bu ma jëlee avance laa tey sama victoire. Hmm. bi ngay jël avance bi gëmoon nga ni mun nga ko daan comme moom ni mu gëmee ni mun na la daan. waaye dama bàyyi ah déggoo ma wax ma woowee téléphone laa laa toogee sama victoire. wala déggoo. Hmm. man sama moom ba dee ak moom. moom ba dee ak moom. man xaw ma defet hmm. xaw ma nga ñëw ci digg géew bi ñu gis seen préparation mystique bi ñu ne lapin bi ñu la tegal nga wéq ko bokk na ci li yàq sa combat parce que ñu bari ci stade bi rafetlu wu ñu woon geste boobu nga def lan nga mën a wax loolu ci loolu. non lapin bi lapin bi surtout gars ñi ma si posé question jégalu naa jégaluwaat si. Hmm. mais lapin dama bëgg tamit nit ñi xam tamit moom bu ko fi indil woon loolu du am. Hmm. yaa ngi dégg. Hmm. ba lapin foo ba man tamit mais tamit nit a réagiré. noonu laa mën a réagir rek yow Cheikh mu ngi koy pousse pour bañ ma laal ko. Hmm. mais échange bi ma koy laal sax xaw ma la moom ma ko laal loo. Hmm. moom tam bu ko fi indiwoon loolu yëpp du ci am. Hmm. mooy loolu daal jotul CNG bi ci yéen ñëpp yéen képp kuy mbër ñu bàyyi bakkan yi dund mala yi dund ñu di ko indi ci stade. man loolu ma amoo ci problème ndax man indi ma mala stade. waaw ah, mais ci yéen loolu da ngay dem nga posé ko ñu ko indi. man indi wu ma mala loolu amoo ci problème dama doon bëre sama ndam laa la jël si yàlla suñu borom xañ na ma xañ na ma kenn yàqalu ma kenn xañu ma si yàlla suñu borom moo ma xañ yàlla moo daan may moo ma xañ waaw na koy sant bu baax. jéem a liggéey wuti leneen. léegi ñu ñëw ci combat bi yéen ñaar yéen a ngi ci digg géew bi nan la Coly Faye waroon bëree ak nan la Coly Faye bëree ak nan la ko Ada daane. non li ma waroon bëree bëree ma ko dama ñëw bëree leneen li ma lu nekk li ma waroon def. léegi dañoo bëgg nga njëkk a ñëw ci nan nga waroon bëree nan nga jàpp ni moom nga waroon bëree ba. bàyyi ci yim di sax. bàyyi hmm. la waat. la làmb arène waaw ah, parce que ñu bari ci ana ma leen la expliqué ba at la waat manuma la mhm. jeex na jeex naa suñu borom moo xaj. Mhm. nañu waxtaan ci leneen. non dinañ ñëw ci leneen. mais ñu ci làmb ci làmb ji. waaw. non dëgg la. décortiqué bi erreur bi mooy la xam nga mooy lan. Mhm. li ma war a def laa deful. dama ñëw bàyyi li ma war a dem def leneen loolu moom ma xañ. li nga waroon def te defoo ko moom lañ bëgg a xam la. lan la ko defee waroon ñëw taxaw dee sama bopp duma ko ba mu tëdd. dama ko waroon duma ba mu tëdd. jàkkaarloo mu ko raakoon. jàkkaarloo mu ko du ma ko ba mu tëdd su ma ko bëggee door dama koy door su ma ko bëggee jàpp dama koy waaw mooy ma la wax moo juumte la rek loolu yëpp juumte hmm. barke alxuraan kay wuru Ada Fass man léegi ni ngeen bëree nan nga def ba dugg ci peesu waaw parce que yow xam nga ni Ada Fass képp ku xamul làmb sax xam na ni mbot fooram. dëgg bi may dal ci kawam. Hmm. boobu sama loxo droite bi la éliminé. sama loxo droite bi mu koy éliminé man sentiruma ko. mais loolu ma def noonu fekkoon sentir naa sama loxo droite mu ngi libre. Arafa day dëppoo la mar ko ndomba ma loolu nit du ma ko def mu ñëw ma a daane tey. billahi mais ku ma dóor rek may aliyat bi. dinañ fay moom par la force damay daan rek automatiquement nga jug rek jubali sa ci laa mën a def mënu ma daan may toog foofu ma toogoon foofu noonu barki alxuraan leneen la ñuy wax leneen nafay am. Hmm. loolu laa mën a def pour sauver bés bi sauver ñenn ñi parce que instant boobu noonu gars yi ma àndal tàng nan te lamb ji àgg na foo xamante ni loolu rek moo ma a sauver lu bari. il fallait que ma def noonu. Hmm. di yoon may to foofu foofu su ma toogoon foofu la ñuy wax. Hmm. Hmm. guddi gi nga Ada Fass daane bi nga ñëwee sa kër wéet yow kese lan nga xalaat ni dund naa ko ci làmb loo xam ne bi ma dalee bëre ba léegi doon kilifa yi mosuma ko dund. dégg defet bii nii. defet bi ma am mosuma ko am. defet bii nii. billaay wallaay talaay depuis bi ma bëree ba tey tey te bonne pratique yan fay mooy dem entraînement maa ngi géej di contact chaque jour di jàppale boyloo lundi ba tey nag tey laa dem entraînement gars yi woon nañu ma sax ma leen damay génn barki yàlla may sant suñu coach Père Alla bu baax Père Alla maa lay santaat bu baax di la gërëm maa ngi lay santaat bu baax di la gërëm li nga ma defal amul nit ku ma ko ma defal ni ma man man ma may milliard man ma may lu ne mais li ma defal moo ma gënal foofu bu dee doole yaa ma ko may bu dee physique yaa ma ko may bu dee contact yaa ma ak seen mbokk ak Tapha Tine ak Abdou Fall ak ñoom Boylo ay Sathiès ay Diena bas de beneen bas de encore ay Fodo Brise Mer gars yëpp ku ma limut xamal dama juum hmm. ay Baye Mandione junior ñoom ñëpp hmm. ak waa écrit Lamsaar bi tamit bàyyiwuma kenn ay Badou Fall ñoom ñëpp hmm. ku ma limut jàppal dama juum liñ ñooñu liñ ma defal moo ëpp lu ma keneen man di defal ndax ñooñu ñoo ànd ak man guddeeg bëccëg. bëri nga ak Ada mu daan la Ada Fass yéeg na Coly Faye day wàcc wala day taxaw fi mu taxawoon ba tey. wàcc musul wàcc ba léegi damay dem. foo jëm si kanam. ñoom ñooy ci kanam soq dañoo ñu bëre maanaam moom. non waaye ci day xam ne moo njaay. nga daanu di ko laaj. baa ji di soq barki la daan ma daanu barki démb mu daan naan ma daan naan di faal soq def fi lu ma fi def yaa ngi dégg maa gën a riche ko ëpp combat man maa ko maa ko daa ko mobiliser fuuf. Eh, qualifié est bu ko gisee du ne non booy bi daf ma yeb quoi. Eh, daf ma yeb. soq yaa ma wax booy bi mais yow yaa ma booy bi mais du ma booy bi. Mhm, noonu la demee nag. lu tax loolu lu sama frère la sama gaañ la. borom baax la bàyyi faa la mais dañoo dañoo ñu bëre da ngaa si. daa am fu a hmm? la gis ci soq. soq sama premier combat ba tey ñu ngi dox suñu combat maanaam moom. ba tey ñu koy dox. maanaam yàgg na dox suñu combat de heure bu ko doxee échec maanaam moom laa moo ñu boole dafa daanu ma daanu defet defet la ndam ndam la combat yërmande combat ah. gargar la si combat yéen mën ne ndax ku dee jógee ci defet te ku ci nekk war naa tegle benn ñaari defet man ku ne day mobilisé ñaana ma ko yàlla su ma amoon trente defet bëri ma combat yéen ma de man heure bu ñëwee day metti waaw mais fii tam fii fii lu metti boo koy war bu yow nga dem toog yi fii amul lu metti lu metti amu fi barki yàlla soo ko laa la ci nekkee xulleeku wax di joxañ di xulleeku man du ma xulli le bu ñëwee ma def ko lu yàlla suñu borom nag mooy maye mooy xañi billaahi su nga mbaa man ak moom xulleeku la jam ak wax ak taalif parce que dafa am loo xam ne sama grand giri giri Badara Diouf sama grand giri Bordeaux ma koy sant bu baax kii mooy waxuma giri Bordeaux de giri Bordeaux bii laay Badara Diouf bu sax mbaaw ma koy sant bu baax moom maa ko tuddee giri Bordeaux waaw parce que dañoo am tere ñoom ñaar dëgg fa yàlla ki combat bi def na lu mu def lu mu mën ak lu mu mënul yëpp jàpp na si su ma amaatoon ay cinq yu mel ne moom dootuma wax dara barki alxuraan dañuy ñëw ci Modou Anta Modou Anta démb dafa am mbër moo jëli. Mm-hmm. kaay toogal na la ñu seq ko. traversé rek dem. Mm-hmm. bokk na ci liggéey bi daa am mbër moo jëli barki démb mu am lu mu wax ci ci ci ci Colifay numéro 2. Mm-hmm. muy da koo daw dem jëli Ada Fass Tafa Mbër. da koo daw dem jëli Ada Fass ñoom ñaar ñoo waroon a bëri mu bàyyi ko fi jëli Ada. lan moo tax nga daw Tafa Mbër dem jëli Ada Fass. man de maa bëri Général Fass ba tey ñaari promoteur ñu ma fi woo. muy Assane Ndiaye ak kii. promoteur bi tëggoon suñu lamb ñu tudd LP production ñoom woo ñu ma sax père père Bourkhane la ñu woo ak père Max ñoo ma fi woo ke Pam Doy la ma waxoon suñu combat Pam Doy taxaw ba ñu war a régulariser combat bi seen woo na leen ah. ba ñu ko war a régulariser mu ne ma ma wàññil ko parce que yéen promoteur ne li ma fay dafa bëri mm-hmm. ma ne ko dama la wàññi cent franc parce que yéene woo ma ni ko la yéene du la wax loolu mm-hmm. ci la sama combat ke loolu moo yàq sama combat Pam Doy mm-hmm. mais dañu doon bëri man ak moom ñu dem ba si biir père Max woo ma ak père Bourkhane

yorewul dara Baye Fall la champion la ndaanaan la mais na dem bëri keneen man bëri ma ak moom. Hmm, dama ko Fass boolewu leen. déggoo li ma la wax. bu hmm. ñu boole bëri moom. yow boo sax mu taxaw dama ko tàppale coori jib naas. Hmm. mais bëriwu ma ak moom. mais yàgg na fee wax mbër bëriwu ma ak mu dem ba ci digg bi soxlawaat ko est-ce que loolu mënu laa dal sa diggante Tapha Mbeur. loolu mënul ne loolu mënul ne loolu mënul sax ne baa ji di. lu tax mënul ne. ndax dama ne mënul nekk rek pare ma loolu pare def loolu. da nga man maa choisirul pour bëre ak ban moo tax. dara neex ma xam nga moom ma sama bopp. xanaa Tapha Mbeur du mbër da ngaa war a bëri. la champion la daanaan la gaynde la. bu bëree mu neex bu toujours mu neex bu waxee nga dee. problème mu suwaa. mais man maa bëriwul moom. suwaa la. problème la de. est-ce na suwaa mën na suwaa am beneen. suwaa bu dul. moom moom bu ko neexee mën na na bëriwut ak moom mais ñoom ñaar combat bu neex la mais question bi ma lay posé mooy kan. le 26 bii nga ñëw andi mobilisation bu takku sa adversaire def noonu. pare nga pour tëj saison bi wala da ngay lem kàkk yi ba déwén. suba bu ma gaa ñëwee ma bëre. yow mi suba suba. suba pour gars xam ne bàyyi ma maa ngi teg sama tàng ba tey ma sas doo bëri ñu xëy lundi ma mafia waa koñ bi yëpp ñëw jël sama sama gaale fekk ma tëdd kankan juwal. ok jël samay dàll lépp ñoo ma solal yére solal ma dàll ànd ak man jiital ma entraînement. ba tey laa demul entraînement kon loolu sas la. ne ma ba baal duñ mos a bàyyi te dama leen amal bor. te bor boobu dama leen koy fay incha allah rabbi ci kàttanu yàlla. présence su Siteu ci biir làmb ji nan la la def. waaye kooku présence am moom lu rëy la ci man kooku sama nit la kooku du sama xarit sama dara sama frère la ma moom ñoo bokk ndey ak baay ni mel si man noonu laa mel ci moom Reug mel ci moom noonu la mel ci man keneen na keneen noonu Abou Diassé noonu Mama Lamine noonu Taxe noonu Thiatou Fora noonu. keneen na keneen noonu man ni ma mel ci nit ñi la nit ñi mel ci man ku ma barki alxuraan karim ñooñu samay nit lan dañuy sonn si man sama combat dañoo def ba def luñ mënul lu def nañ ko gunge ma def nañ lu ne man maa ma warul def yàlla suñu borom àndul ak man ñu koy sante yàlla kenn xañuñu yàlla moo ñu xañ ku jàpp ni yaa ñu xañ wala yaa ñu lor yaa ngi nax sa bopp amul kenn ku ñu mën a xañ yàlla rek moo mën a xañee man boog li ma jàpp man xaw ma keneen lu mu jàpp lu keneen jàpp sama mais man li ma jàpp maa jël avance maa doon bëre maa ñàkk kenn xañ ma maa yàlla moo ma xañ ak sama bopp lu ma def lu ma warul def hmm. léegi bu léegi léegi bu dul bu dul soq nee nga bëree woog Tapha Mbeur yan adversaire nga war a mën a bëreel ci biir làmb. waaw ah, grand maanaam assurance su ma amee ma jël tamit de. Bougar grand maa ngi koy nuyu bu baax la di ko siyaar fan yii passé siyaar mi laaj combat la gars yi xam promoteur dañ ko fàtte. Mm-hmm. waaw ay la non sama grand dañuy leewaatoo man moom arbitre la ñu roofu la moom ndaanaan la. Mm-hmm. Mm, da koy ñaan pare naa pour leeral dama koy ñaan chance moom dëgg fa am na am na am na ay mbër yoo xam ne nii. Ah, xam la boppam non du question xam boppam. am na ñoo xam ne da nga leen ñëw jox leen liñ moom liñ yelool liñ moom. grand loolu la yelool kooku borom baax la. am na ñoo xam ne doo leen minimiser. mu ngi koy baab. non baab ma ko barke sëñ Bamba. ji koy eh, naa dañuy nuyoo def lépp. dañu mm. may daje booy Pikine lamb nii man a booy Pikine ñuy jàppante naa ci xeex def lépp mais man ak moom barki alxuraan sa jour day naaj dañuy daje ci diini fajar mu ànd ama mu ànd ak sita mm. dañu ñëwante na entraînement pare ku nekk dem ñu bëggante barki alxuraan dafa am nit a war a manque respect am nit ñoo xam ni manque de respect barki alxuraan karim Pape Ndoye laay goote yow dégg nga ma la ñoo ñëpp dañuy xaar mu na ndax mu laa bëgg xam man parcours li ma parcours il faut ngeen ci bàyyi xel. Ah, man ñaata personne laa bëreel ñi ma bëreel ñooy samay morom lan. combat gargar damaa gargar ba dee. nan dem jaar fi ma jaar nan dem bëri jaar fi ma jaar ku jaar fi ma jaar boo ñëwee ma bëri yow. waaw. ayca maa ngi koy jaajëfal man kontaan naa bu baax ndax yaakaar naa. xar yi xar yi amoo xar bu leen neexee jàpp leen bu leen neex yóbbu. <laughs> ah déet amul ay non bu leen neex yóbbu. problème non non problème. fii koñ la fii rek sama gàllankoor nii si ginnaaw mooy koñu nu ngay waxee sax maanaam fii yëpp caare la mais fii mooy koñu gaal gi. koñu gaal gi moo nekk fii Nesele si Nesele. moo nekk nii. Mm. ñuy wax autorité caare ñu leen woo monsieur le maire wala ñuy waxal kon ñun usine Nestlé bi ñun ma ñun mënuñu wax ak ñoom ba dégguñu. Hmm. ay a à Thiaré ñaari usine ñoo fi ne. Hmm. doomu Thiaré bu ñuy bëre wala ñuy football wala ñuy def leneen société yi nekk fii na leen taxaw ñoom ba njëriñ la ñu amal. yaa ngi dégg. Hmm. seen produit fii ñoo ciy noyyi ñoo ciy dee. mais amul cent franc bu ñuy jëriñ. usine Nestlé bi dafa waroon barke alxuraan karim chaque mois mu dugal fii gàlle yi kër gu ne mu dugal fa ravitaillement meew. parce que ñun air bi ñuy baaxul. waxuma ngir xeele ngir dara mais dama wax pour ñoom ñu gëstuñu. Mhm. ñu jàppale ñun seen doom lañ fi leen dëkk. ñun bu ñu nekkoon usine bi du nekk fi mais ñu ñoo leen yaasal mu dëkk fi ñu gëstu nii demee di jàppale feneen ñun fi leen dëkk fii si dëkk bi nii fii ñaari usine moo fi ne ay usine biscuit usine bonbon ay cigarette fii usine bu ne mu caaray te usine apporté lañ doomu caaray dara ñun fi leen dëkk. doomu caaray duñ ci liggéey. Hmm. amul doomu caaray buy jariñu si usine yi amul. bu fi jariñu amul ay étranger dañoo ci jariñu xool cité bi fii ñu toog nii cité la usine bi moo ko jënd dagg ko jox ñu fi liggéey amul kenn ku ci dëkk caaray ay étranger dañoo fi dëkk barki alxuraan karim mais ñun nañu geesu quoi xam ñun fi leen dëkk ñun bu amee ndam yóbbuñ ko feneen fi leen koy indi ñun nañu jàppale teg ñu loxo comme yéen gox ni ñuy tegee seen bëri loxo nañu tegee ñun barki alxuraan karim billahi wallahi talaay bis bu ñu amoon jàppale barki Serigne Fall Mbacké suñu morom duñu yi li amul genre amul pause jeunesse caaree laay wax muy xale yi ndaw ak mag ñëpp jeunesse bi barki alxuraan amu ma seen fay ku ci am sa ñaar dërëm wala cent franc yaa ma koy defal dañoo dem ba defal seen carte di ko jaay mille franc mille franc si te seen biir lañ koy jaay barki alxuraan damaa dem ba am problème sarax. ci combat bi barki alxuraan karim damaa dem ba def lu ma am damaa miraas sama bopp. billaay walaay talaay ñaan métti na trop mais kii nangu moo a mm-hmm. mm-hmm. kon am ñun ay doomu caara bi amee ndam yóbbuñu ko fenn fii la ko indi wax ji dama ci appuyé appuyé mhm. si wax ñu taxaw ñun ay doomu caara lañ mhm. bu ñu amee ndam ko indi yóbbuñu ko feneen caara géej lañ indi ñun fii am ñun mënuñu dem feneen furu caara mënuñu gën a caara yi mhm. ñun caara la ñuy bëggee fii barki alxuraan ñun duñ génn fenn naan feneen lañ dëkk fii lañ dëkk caara yi li mu wax am na solo parce que yaakaar dëkk ci gox bi liggéey ci gox bi moo ko gën ñi nga xamante ñooy maire yi fi dëkk ak ñi nga xamante dañuy liggéey ci état jot nañu taxawu ndaw yi nga xamante ne dañuy génn di représenté gox bi parce que tey mbëru caare bu bërëjee bu daanee danaan mbëru caare yee daan bu daanoo danaan mbëru caare yee daan loolu wax dañ ciy tudd caare yi te yaakaar naa ne loolu sag la sax ñoom ñi nga xam ne am nañ tur te seen tur yeegul fenn fi ñu ñëw booto ci ginnaaw Coly Faye 2 wala Baye Mandione wala rëg-rëg Badou Fall Baye Mandione Junior Bas de wala Boylo wala Sa Thiès bu ngangu ne jàppale leen yaakaar naa ne buñ leen jàppalee seen doomu gox lañ jàppale ji li hmm. donc am na ay grand yu jàpp ay grand ne mooy loolu ñooñ bu ñooñ buñ teewoon billaay kenn waxatu ko ku mel ne ay grand Lamine Wade boo demee lu mu mën sëñ sëñ Moussa Boris incha allah Ibou Diop confession kooku moom dama koy bàyyi yàlla suñu borom yàlla ko yàlla suñu borom defal jàmm kooku lu mu mën ak lu mu mënul mu koy def si man su ma open booy blouson yi mu sol hmm. yëpp moo ko ñëw moo ko Pape Ngom Cheikh Saw Sadio Mané Baye Dafa ak ñoom ñëpp daal ay banda conventionnaire conventionnaire caara yëpp conventionnaire caara yëpp maa leen sant di leen gërëm gis naa leen taxawoo ci bés bi taaral nañ bés bi rafetal nañ ko waaw di sant Fandiaye Yade Khady Diop suma papa suma yaay sumay soxna di sant ñëpp di sant suma xarit yëpp maa ngi sant ñëpp Jokal bu laa fi nekkal lamb laa fi nekkal ku ma fay lu a loo ma war a fay damay dem da yi bu doon dañuy waxante dëgg nañu gars yi a bàyyi xel parce que dañuy fay mbëri loo xam ne nii mbëri mag yi li leen di fay duñ ko dugal esat yaa ngi dégg te ñun dañuy fay ak su néew da ngay def suñu bopp yaa ngi dégg xoolal bam autorité caara yi laay waxal lii damay waxaat ak yéen xool leen Bamba Fall li dafa bëgg doomu réewam barke alxuraan karim est-ce que jëndalul booy bi dix bolo xaw ma dix bolo ko jëndal ñu koy la bu doon caaree ko def ñu jëndal ma bolok yooyu noonu ma koy jaay téeméer du ma jaay dama koy may waa waa bu ñëwee duñu am fu ñu toog stade duñ toog duñ dugg soo bay toog dama koy feesal dama koy ron sama boy yi nga gis yëpp seen ticket yi ñoo ko jëndal seen bopp junni deux mille barki alxuraan karim te amaana yoruñu mais bu ñu xam fu ñu koy dañuy jaayante fu ne lañ koy jëlee nga bëgg a defar ticket bu quinze mille bëgg ñëw demaat fay gaay dimbali gesuñu ñu fi leen dëkk amuñu fi leen dul fii ni gars yi dimbalee seen bëri gox nañ dimbali ba ma faal li mu def man dama ko a dëkk yaa a def hmm. hmm. hmm. a ñun dimbali ngir yàlla te geesuñu am na solo mbokk yi ñu ngay jaajëfal bu baax moom Coly Faye numéro 2 wax ko ndax yaakaar naa ni bu nit nekkee ci sa gox di défendre li nga xamante ne mooy sa couleur gox di bëre ji yay na yéen yi nga xamante ne yéen autorités yi ngeen gën leen taxawaat tàllal leen loxo wolof nag def ne bés boo gis bis lay fay mbaa muy lebal bés te dina am bés bu jot ngeen soxla xale yi te bu keroog mën naa demee neneen mbokk yi di leen jaajëfal bu baax di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew làmb jërë ngeen jëf.